Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balwaq di leen euh, sant bu baax di fas yéene nag euh, sant itam sunu mbokk yi nga xam ne lii ngeen gis sama ginnaaw ñoo ko bokk liggéey muy liggéey bu mag boo xam ne waa cees ak banlieue cees wala Sénégal yépp ñoo bokk liggéey ko ci njiitul nag sunu directeur Mouhamad Lamine Diakhaté nga xam ne mooy suñu directeur fii ci rajo bi ñu gërëm ko bu baax sant ko ànd ak suñu jigéen soxna bint moom lañ leen wanoon sànq muy konte matlo yi kooku mooy soxna Bintu gay nekk service commercial fii ci Sud FM bu cees macha allah ñu ànd ak personnel bi ak keesuwaay yépp ak mbooleem sénégalais yi ñu am liggéey boo xam ne man dañ ma ko sasoon <clears throat> ma doxalal leen ko ci seen tur ak seen taxawaay muy prison Thiès bi nga xam ne wax dëgg yàlla dafa amoon ay xat-xat directeur bi demande woon ma ne dafa bëggoon ñu dimbale ko pour yaatal gi euh, ba ñu tabax fa nag euh, benn bâtiment bu mag incha allah ci kanam tuuti danañ leen wan bâtiment bi ngeen gis ko waaye lii mooy li nga xam ne moo fa war a dem muy tëddukaay yi bâtiment bi mu pare itam 120 mètres carrés la ñu tabax ko ba pare fas yéene équipé ko parce que mënoon nañ ko tabax rek bàyyi mais dañ ko bëggoon tabax ba pare def fa nag ay tëdduwaay yoo xam ne ci la njaboot ga fa yàlla dugal tëdd fa ba yàlla jeexal seen wàll Euh, liggéey boobu nag moo sotti tey jii incha allahu taala ñu fas ko yéene nag yóbbu ko jébbal ko seeni borom waaye xam naa ne danañ ci jot euh, yeneen i liggéey ci kanam incha allah waaye lii daal ay matlu la yoo xam ne waa Thiès ak Sénégal yëpp ñoo ko bokk dajale euh, fas ko yéene yóbbu ci liggéey boobu léegi ñu wan leen nag néeg bi incha allah ngeen gis bâtiment bi ñu def ko ci prison bi lii nag damay def rek lancer appel Adja Bintu ci mbooleem Sénégal yi yëpp ñu bàyyi xel lu mel nii parce que ñun ñëpp euh, mën nañ fa demi parce que kaso jombul kenn soo gisee lu mel ni état di xaw ragal wala yenn yenn gaa yi nga xam ne yàlla daf leen may teraanga ñuy xaw ragal li koy indi mooy baat bi ci olof yi wax maanaam ku tabax kaso da ci dugg loolu ay wax la rek ñi dugg ci kaso kenn mësu ci tabax kaso te am nañ kilifa yu bari yoo xam ne dugg nañ kaso ba ci yonent yi yonent yàlla yuusufa dugg na kaso te masula tabax kaso kon nag nit dafay am yërmande bi ci des bu ñu xool rek ne ka def bandi la wala euh, dafa jubadi la ko yàlla nattoo ba mu def la mu def ba la ko yàlla nattoo nga def la mu def parce que doomu aadama kenn moomu ko yàllaa ko moom moo koy manipuler te destin mënu koo rëcc kon nag ñun li nu war rek mooy moom noonu innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna aqwaykum boobu yàlla waxoon mooy defer rek suñu diggante ak ñoom may ñaan nag fépp fu kaso rek ci Sénégal ak fu Sénégal nañu def luy waa Thiès yi def eh, lañ fa njëkkoon a def mooy yóbboon nañ fa daaw mille vingt deux mat la ren ñu tabax fa bâtiment bu mag boo xam ne cent vingt mètres euh, euh, vingt mètres la yóbbu fa itam mat la yu toll ni deux cent yi quelque fas yéene équipé place ba loolu nag dañuy ñaan nag Sénégal yépp képp koo xam ne gis nga appel bi ñu ngi lay ñaan fa nga nekk ngeen taxawu prison prisonnier ya fa ne parce que yi ëpp solo ci àdduna Pape Bachir ñu war leen gën taxawoo mooy lu mel ni Euh, prison yi lu mel ni hôpitaux yi lu mel ni daara yi lu mel ni itam euh, euh, armeel yi parce que ñooñu fu ci ne ñafa ne dañuy néew doole maa ngi fàttaliku rek bi ma demee Rëbës am na ko ma foo xam ne ma Iran na ngeen ñuy jàppale parce que ñun wax dëgg yàlla genre ay néew lañu rek yéen ñi nga xam ne nekku leen ci kaso bi yéenay nii dund kon nag wax dëgg yàlla dañuy ñaan nag sénégal yi yépp ñu def itti ci kaso yi def itti ci hôpitaux yi def itti itam ci daara yi def itti ci armeel yi armeel yi ban itti lañ fay def mooy am na koo xam ne keroog bañ ko suulee lañ ko gëj a ñaanal defe naa nag benn bugaan ngay dani génn fële wàcc ay kaamil togg ay ñam yéene ko ñi faatu sarax ba yool ba ñu jot ci loola defe naa jaamu yàlla mu dem jënd ay garabam yóbbu ci hôpitaux yi defe naa jox leen ko fa tabaarakallaahu ñoom itam ñu faju ca loolu itam ku ca wér boo jaamu yàlla mu jot wàllam kon defe naa ne nit li mën a jaamu yàlla bëri na dama ci joxe exemple boobu rek lii jaamu yàlla gu mag la ko defee nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp sant télévision euh, Sen TV di sant suñu directeur bi wax dëgg yàlla moom mi nga xam ne itam wax dëgg yàlla jàppale nañu ci yëpp waaye sant itam say latir mi nga xam ne itam taxawu nañu fii ci niveau de Thiès sant itam suñu directeur Mouhamad Lamine Diakhaté waaye yéegal ko ci directeur général ba muy Omar Diouf Fall wa tabaarakallaahu daal ñu sant ñëpp gërëm leen euh, présenté sénégal yi liggéey bii nga xam ne liggéey nañ ko Thiès mu jëm ci kaso dixième bu Thiès muy bâtiment bii ñu fi tabax ak matlu yi nga xam ne macha allah yóbbu nañ ko pour lalal leen ko ñu mën ci tëdd ni ba yàlla di dogal seen génn yan yàlla génn ñëpp yan yàlla dimbale ñëpp ñu ngi def appel ñëpp daal man li ma gëm daal soxna Bintu mooy am réew suñ ko buggee bàyyee président de la république du sotti kenn ku ne secteur ba nga ne la nga fa mënee da nga koy def xam nga bëkk néeg bu fekkente ne dañu mbayum bëkk néeg moom defe naa ne Cheikh Seck xam na ko mooy kee day taxa fële kee def fële kee def fële su gëndaloo rek tool bi day daal di yaatu kon donc am réew bu ci ñëpp nekkee ku ne la la yàlla may ci wërsëg wala pexe wala doole moom ngay jàppale réew ma waaye doon nañ ko bàyyi président kon dara du sotti parce que bu dee ku ñëw ñu balaak réew mi doo dem réew mi kenn attanu ko waaye nag suñ la jàppalee ak pexe ku ne la nga man nga def ko day daal di oyof moo tax Thiès def def liggéey bu mel ni defoon ko daaw defaat ko ren ñu ngi def appel nag adduna bi yépp fu nit nekk daal sa itte nay ñi sonn sa itte ne néew doole moo tax ñu ngi gërëm waa Thiès ci liggéey bu réy bii di lancer appel boobu ma wax léegi ñu dimbale hôpitaux yi dimbale daar yi dimbale kaso yi dimbale ñu nekk ci armée li ci ñaan bu ko defee yàlla dinañu bokk dimbali incha allahu taala ci kanam tuuti rek da ngeen gis nag bâtiment bi ñu wan leen ko lii mooy la fa jëm may ci kanam tuuti ñu wan leen bâtiment bi commission bi ñu ànd liggéey bi ñoo nekk ni taxaw ñu jàppale ñu ba ñu yegg si fii kon ci kanam tuuti ñu wan leen euh, bâtiment bi gis nga ko Euh, fii ñu taxaw rek am na ñu indi seen i matlo pour jàppale ñu ci liggéey bi am na jëmm ju taxaw nii léegi te dugalagul ay matlaam kon loolu liggéey la boo xam ne boo rafet la nit ñi jël seen alal nag di ko yóbbu ci caaxaan yi defe naa dugal ko fii mu ëpp doole waaye jël say milliards amoo foo koy def di ko investir ci ay caaxaan di ko yóbbu ci ay po di ko yóbbu ci ay mbaboor di may ay trente millions ay vingt millions ci loo xam ne fa nga ko dugal dërëm bu ci ni duma lay jural mbugal la lay jural sa bàmmeel defe naa ne jëloon sa alal investir ko ci lii moo pon doole lu mel ni tey ji lii nga investir sa alal defer lu mel nii ci hôpitaux yi baa nga def ko ci daara yi baa nga def ko ci kaso yi defe naa ne foofa mooy jaamu yàlla waaye alal joo xam ne fa nga koy dugal yàlla amu fa dara amu fa te la jox alal ji man defe naa ki la dénk nag fa mu bëgg foofu nga koy def te yàlla nee na wa ma anfaqtum min shay'in foo yoxli foo ñii ko def perte ñu ko ñun ñu ko doxit perte ñu ko ñun ñi ñu jiitaloon ñu di ko dox itam perte ñu ko te liggéey bi lu gàtt la un mois et quelque rek la def tabax beeg lépp amul amul yàggaay parce que liggéey itam bu fekkee ne naroo ca leneen war naa mën a gaaw waaye sànc bu dul yegg moom am na lu borom nar ci sànc ba ab sànc day yegg waaye sànc bu def at ñaari at ñetti at kon am na loo nar sànc mais sànc bi mat paasewul deux mois tabax nañ ko karo ko peinture ko léegi ngeen gis ko incha allahu taala la ci war yépp ñu def ko ci ba war ko équiper nii kon defe naa ne loolu Sénégal yi war nañ ci xool amul at nag jarul yeggal parce que am na loo xam ne bu la ñoree war naa mën a gaaw parce que bu durée yenn durée yi rek am na leneen loo ci nar mais deux mois matu ko ci tabax ci penture ci karo ci lépp ak ba ci dajale matériel bi fa war a dem passewul deux mois wala matu ko kon loolu dañ ci sant yàlla subhaanahu wa taala mi nga xam moo ñu ci dimbale waaye sant yi nga xam ne ñoo ci jàpp jiital ñu ñu yor liggéey bi ànd ceek ñoom ba ndam li ñëw ci tey kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaye sant télévision bi ni ma ko waxee Bougane Gueye Dany di ko gërëm bu baax ci jàll jàllale gi ak taxawaay bi ak jàppale gi gërëm say latir moom itam ci jàllale gi ak jàppale gi fa tabaarakallah ak Sud FM Omar Diouf ba ci suñu directeur Mouhamad Lamine Diakhaté ak suñu secrétaire eh, ak sunu di sunu yor service commercial bi Adja Bintu Gaye mu ngi nii toog moom ngeen gi sànq muy compter di fi ñëw ci matériel kon ci kanam tuuti incha allah ñu dugg ci bâtiment bi. waaw aja aja ñëpp ñëpp nga ko defal yëpp nag su am ceeb waaw si yàlla daal yëpp nag baax a baax jërëjëf jërëjëf asalaamaaleykum mbokk yi eh, tey nag ñu ngi fii ci prison Thiès muy prison dixième eh, bi nga xam ne tey kii ma feggool muy directeur bi muy El Hadji Adama Diallo nekk jiite prison bi ni ma ko waxee rek sànq muy nit koo xam ne daal wax dëgg yàlla ku rafet eh, xol la ku rafet ay yéene la ku am taxawaay la. ni ñu leen ko expliquer rek euh, bokk na ci initiative yi nga xam ne def na ko demoon na ba ne bëggul benn prisonnier jóge fii ñu yóbbu la hôpital monité ñu di la xool wax dëgg yàlla moom rafetluwu ko ci doomu aadama ba mu euh, ittewoo di wut fii bërëb boo xam ne dañ leen fiy faje loolu doyul mu toogaat ba mu yàgg gis fi ñuy tëdd rafetluwu ko mu daal di waxaat ñu dajale mat mille vingt deux indi fi mu seddalewaat ko ci ngoram ak mbaaxam mënoon na ko stocké ni ma ko waxee sànq lu yàqu mu indi waaye da ko séddale kaso yu bëri ci biir Sénégal loolu doyul bi mu demee ba gisaat ne bërëb bi xataat na bi ngeen gis nag tey ci làmmiñam ci ndigalam ci taxawaayam ci la ko defee ñu liggéey liggéey bi cees ak li wër Thiès yëpp ñu sasoon ma liggéey bi nag ma seq ko moom ba liggéey bi yegg tey jii ñu ñëwoon ci directeur bi vraiment mu ànd ak matlu yi nga xam ni moom la ñu war a def ci place bi kon nag kii mooy directeur Amadou jàlloo loolu nag defe naa ko am xol bu soxor mënu ko mënoon naa yem ci bureau yem ci liggéeyam yem ci salaire am pare ci ne man dañ ma sant rek naa garde dem waaye loolu lépp defu ko tey prisonniers yi fi nekk koo bu génnee ñëpp a koy gërëm ñoom ñëpp ay wax mbaaxam cérémonie bu fi am dañ koy tagg wax naa leen sànq ne lu ne la fi organiser pour delloo si leen ay làmbak événement bu am muy gàmmoog lépp dana fexe rey nag toppatoo leen ñu lekk pour wan leen ne ci ngeen bokk xëy na dogalu yàlla moo leen jàpp ku mel noonu nag wax dëgg yàlla bu defee liggéey bu mel noonu Sénégal yëpp war nañ ko xam waaye rawatina nag directeur général am rawatina ministre waaye rawatina nag ki nga xam ne moo leen bokk waa fi ñoom ñëpp di président de la république di El Hadj Macky Sall kon defe naa ne Macky Sall na xam ne njabootam bii daal am na taxawaay waa Thiès yëpp sant nañ ko ci prison bi taxawaayam prisonniers yi sant nañ ko ñun ñi fi nekk itam. Euh, sant nañ ko baax gërëm ko ndax taxawaay bi rafet na defe naa li sawarloo nit ñi loo xam ne matul ñaari weer ñu liggéey fi lu toll nii loolu xol bu rafet moo koy man mënoon na diire at wala ñaari at ti du yegg waaye matul sax euh, ñetti weer ñaari weer liggéey bi ak li fi war a dugg yëpp ñëw kon nag kii mooy directeur Adama jàlloo moom lañ leen di présenté ñu jox ko kàddu gi ngeen baal ñu àq directeur. jërëjëf asalaamaaleykum waa Sénégal. tey ñun dañu am mbégte ndaxte lii oustaz Iran Ndao defal ñu fii ci yombul te ku xam oustaz xam ne ku bëri charge la waaye yàlla def na à chaque pois que ñu sollicité ko rek pour yu mel nii rek mu taxaw te mënoon na ko def feneen te boobu tam loolu war na ko

munoo bisimilah moo ne ba ci kanam gis na kat ah nombre d'études fi nekk augmenté wu na ma dem gis ko ne ko ah sëñ bi mun naa mën a ko ah gis naa urgence mun naa mën a ko fee daal tërin bu daal xaw naa doy waat tuuti loola daal suñu mënoon defar beneen néeg moo may gën a mun na fekk si naa kere bu ma ko waxee matul 30 minutes camion suuf ñëw 2 tonnes de ciment ñu mun a commencé liggéey booba léegi nag teggul loxoom ñun kay lay laaj fi ngeen toll ba teñ mu defar néeg bi muy cent vingt mètres carrés def ci équipement bi yëpp man la yii laajuma ko damaa toog rek dégg ñu ne ah Iran Iran ngay toppatoo ay man la donc ñu mel nii ñun Sénégal dañ koo soxla parce que état mënut def lépp. te dañu laaj que ñuy dem nag bu ñu nekk gox bu nekk di seet ñu nga xam ne mën nañoo dimbal pour ñu amee condition de détention des des détenus waaye ki li ñuy wax gàcce nga man dama koy gërëm di ko sant parce que nit ki ak jamono yu ñu jafe ñun ñëpp ñu yëg ko mu mën a def lii def ko ci moins de deux mois xam nga ne loolu njàmbaar la kon nag sëñ oustaz

lii mooy wanag yi waaw bokk yi lii nag euh, ginnaaw bu leen nuyoo ba pare rek ñu présenté leen liggéey bi nga xam ne moo am fii ci dixième di kaso Thiès euh, liggéey la boo xam ne directeur bi ni ko waxee woon rek moo ko sàkkoon ndax xataayu bërëb bi yàlla dogal nag ñu liggéey fi bâtiment bi nga xam ne mu ngi nekk 120 mètres carrés euh, tabax bi nag moo nekk ni pare na lii itam muy mat la yoo xam ne dañ ko indi boole ko ci ndax olof day wax ne nga day mat parce que itam boo defaree néeg bu mel nii wala bâtiment bu toll nii ñu indi fi bagage yoo xam ne itam baaxul du rafet moo tax euh, bâtiment bi ñu liggéey ko macha allahu euh, liggéey bu sant yàlla nag ndax lu fi war a am yépp am na fi am na ay toilettes am na quatre euh, toilettes yu cabinet am na fi sangukaay am na fi loolu itam def nañ ko fi wax dëgg yàlla am na six ventilo karoon nañ ko def nañ fi lépp tey nag ñu indi fi matlo yi pour mën ko jëmmalee bërëb bi moy li ngeen gis suñu ginnaw ah lool nak dañ koy sante yalla rek sante wa Thiès sante Sénégal yépp waaye nak lancer appel ñi ñu taxawal muy suñu kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci prison bi muy chef de cour ak ñi nga xam ñoy ñooy yi fi nekk and ak ñom di taxaw xalé yi di len saytu defe naa ñoom bu ñu sañoon tey kaso bi kenn du fi ne ndax ñom da len di noppal kon li ñi ñaan yalla rek yalla na may len ñu genn ci jamm te yalla dimbali ñepp kenn baña defati lu ni mel ba ji fi waaye li sant yàlla rek ñu lancé appel sénégalais yépp ak fu nit mun a nekk ñuy prison parce que ñii li nu man rek mooy ñu jox leen ne leen leen gi lañ man am nañ sa xol bu ne bu doon ko def dañuy ne fii rek ñu leen di ñuy seen ci ki dem ba vraiment na leen ko yokkal ñu leen ñu poste de santé am ñoom ñu liggéey ko fii pour rek ne bëgguñ ñu monité nit di ko yóbbu ci euh, hôpital ba gor yi di ko gis ku waral rek tabarkalaaw cees ak banlieue Thiès Sénégal yépp a ci jàpp wax dëgg yàlla ah ñu gërëm itam maçon yi fi nekk ti ki nga xam ne moo leen jiite muy njegéen mii vraiment bokk ci waa kër maam ma du Baru njegéen moom itam nekk am taxawaay bu rafet fii di ànd ak ñoom di leen jàppale ndax ñoom ay gan lañu fi dëkkuñu Thiès mais il faut ñu am nag jëwrin boo xam ne moo dëkk Thiès mu di leen jàppale kon ñun itam ñu ngi gërëm maçon yi ñu jàppale ci liggéey bi yépp gërëm peintre yi jóge woon Dakar jàppale ñu ci liggéey bi jërë gërëm carreleur yi nga xam ne itam dañ leen fi indi ñu jàppale ñu ci liggéey bi menuisier métallique yépp ñu bokk leen sant waaye daal maa ngi ñaan di lancé appel Sénégal yépp fu kaso ne daal dëkk ba fa ne wala secteur ba ñu bokkandoo ànd jàppale leen parce que itam Macky Sall mënul boole def lépp kenn ku ne fa nga toll yaa mën a jàppale réew mi ndax ñun ay doomi réew mi lañ defe naa waa Guinée duñ ñëw defaral ñu ko waa Mali duñ ñëw defaral ñu ko waa France duñ ko def Amérique duñ ko def defe naa Sénégalais yi ñoo mën a taxaw defaral seen bopp bu dee nag ku ne fa nga nekk yaa ngay góorlu am naa yaakaar ne problème bi du bëri wala bu bëri itam du yegg ci lool kon nag lii waa cees def daal maa ngi lancé appel Sénégal yépp fu kaso nekk rek ñu ngi ñaan ña fa nekk ñu góor góorlu jàppale prisonniers ya fa ne parce que yi ëpp doole euh, chef de cour dafay nekk prison am na ci solo Euh, euh, hôpital am na ci solo daara am na solo armeel am na solo parce que ñeenti secteur la yoo xam ne ña fa nekk mënaluñ seen bopp dara dañ leen di mënal dara tey boo demee hôpital ña fa ne dañ leen di mënal fii ñi fi ne dañ leen di mënal ak feneen ak feneen kon daal ñu ngi lancé appel ñaan ñëpp rek lii waa Thiès def ak euh, ci ndigalu suñu directeur muy directeur Amadou Diallo ñu ngi ñaan ndekk mbooleem Sénégal yi ak mbooleem directeur yi yor ay prison ñu def ab ubbi ubbi gu mel nii pour ñoom itam seen prison mën a yaatu su ko defee daal loolu la ñu doon ñaan lancé appel boobu sant nag mboolem garde yi fi nekk sant mboolem kilifa yi fi nekk ñaanal leen yàlla yokk seen grade waaye di leen boole nag ak président de la république wax leen ni ñi nekk fii daal vraiment jàmbaar lañu comme ñu koy wax président de la république mu xam ne daal ñu nekk fii ci dixième jàmbaar lañu di ñu ngi koy jàppale parce que lii tey moom la waroon moom président mu ñëw tabax ko fi waaye gis nga ko wuutu nañ ko ci ñoom dox seen euh, fayda dox la ba li am fi kon ñu ngi wax président ne ko daal waa dixième muy kaso bu Thiès garde yi fi ne ak seen directeur vraiment jàmbaar lañu kooku ñu wax ko président de la république maître euh, nu mu tudd El Macky Sall moom itam mu gën leen a bàyyi xel gën a xam ne itam nekke am na ñu koy jàppale franchement li ci jàppale la bokk mënoon nañoo yem rek seen i place yor seen i siège garde ba euh, li ci de seen yoon du ci ne waaye dema dem ba wut fi poste de santé ko feebar man faju dama dem ba yokk fi ay batiment dem ba fi ñuy recevoir ñu defer ko def fa ay ventilo fi mu ne ku ñëw seeti sa mbokk soo ñëwee am nga fooy toog pour ñu accueillir la nga mën a wax ak say njabooti doo am problème naaj du la fa fekk ventilo yaa fa karo nañu ko def nañ fa lépp kon daal vraiment président de la république maa ngi lay yëgal ne dixième gi muy kaso Thiès bi ñuy fi nekk di garde yi fi ne ak seen directeur jàmbaar lañu loolu maa la koy seedeel parce que daaw ñëwoon nañ fi ñu wax ñu ne tëddukaay baaxul manoon nañoo bind lettre président wala ñu bind ko seen ministre wala seen directeur général ne ko lii lañ manqué mais dañuy ñëw seet ñu leen jàppale bañ indi fi 1022 mat la ñu def ca lu rafet nag wala lieu que ñu yemale ko fi stocké ko lu màggee ñu génne leneen mais dañ kee sédd euh, sédd nañ ci Mbàkke sédd nañ ci Mbuur sédd ci Tiwaawoon sédd ci Dakar sédd ci euh, euh, Tamba fu ne partout sédd nañ leen ci mënoon nañu mel nag yor ji ko sénégalais jël ci lañ soxla denc la ca kon ki def loo ren ñëw ñu ñëwati ci at mi vraiment euh, defati bâtiment bu toll nii demandé ko dox ko ba yàlla sottal ko defaraat fëli nga xam ne fa la ñuy accueillir tabax ko ba mu rafet loolu nag vraiment boo amee njaboot mu def ko ñun ñu nekk Thiès ak li wër Thiès ñooy yëgal président ne ko am nga njaboot yu jàmbaar am nga ñu la taxawu am na ñoo xam ne yemuñ ci sàmm ga dañuy boole uuti mboop di sotti jur gi ndax bu noor bi méttee kon président de la république loolu ñu ngi la koy xamal nga xam ne loolu am na fii ci Thiès nga nga mën a gërëm sa njaboot mën a xam ne am na ñu lay jàppale donte amuñu doole ñu ngay wëri doole yu la sagal ci sa réew kon ñu ñaan nag Sénégal yépp bokkandoo def ko vraiment taxawaay bi rafet na ñu gërëm Thiès waaye gërëmit ñi ñu ci jàppale eh, ñu ngi gërëm say latir vraiment gërëm nag euh, directeur Sud FM bu Thiès muy Mouhamed Lamine jaxate ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne taxaw na ko ci liggéey bi appel yi ñu ci def yépp gërëm suñu directeur général muy Omar Diouf Fall waaye gërëm waa Sen TV itam vraiment ñoom itam ci jàllale gi nga xam ne ñëpp xam ne kaso yi am nañ problème ñu yàlla may teraanga nañ jëm si fii waaw kaso bu leen dégg ne ku ko tabax da nga ci dugg loolu du problème mënoo fexe saar di génne ko lab ti ne doo ko fekk ci ndox mi mënul nekk fii ñi fi nekk ñëpp kenn mësu fee tabax kaso ah président yi fi dugg euh, kaso kenn mësu ci tabax kaso sëriñ si euh, dugg kaso kenn mësu ci tabax kaso yónent yàlla yusufa dugg na kaso mosul tabax kaso kon donc aadala la boo xam ne day yàq bopp nit ñi ba dañuy mujj xale yi di loro kon képp ku yàlla may alal nga bëgg a jaamu yàlla defe naa bâtiment bu toll nii cees ak banlieue Thiès liggéey ko defe naa ko fi fanaan benn guddi julli fi def fi lu baax rek nga jot sa wàll sa bàmmeel kon defe naa na ko cees Sénégal yépp def loolu lañ leen di ñaan borom alal yi itam ñu jël seen alal jàppale prisonniers yi jàppale garde yi ci liggéey bi nga xam ne moom la leen président de la république sas loolu la ñuy def lancé appel boobu ñaan ñi yàlla may alal ñu liggéey lu mel nii dem ci hôpitaux yi dem ci daara yi taxawu armeel yi parce que loolu rek ñoo ñoo mënalu seen bopp dara ki mënal boppam yàlla waxul ñu dimbali ko bi muy wax ndimbal def na inna ne innama sadaqaatu lil fuqaraa wal masaakin ndimbal da nga koy jox ki néew doole defe naa fii fi la néew doole yem kon nag ñu ngi ñaan Cees nag jàmbaar ci bâtiment bi ñoom garde yi euh, bu am danañ jël prisonniers yi sagal leen ci làmb da fii am lépp lañ fiy def pour rek maanaam wàññi seen naqar stress bi mën a wàññeeku ñu xam ne ba léegi ci société bi lañ bokk donte yoon moo leen teg loxo donc loolu baax na fi bu de décembre jotee événement bu jot danañ fexe ba bégal leen la tolloog la no mante am ko ñu bégalee ko njaboot gi fi nekk moo tax boo fi ñëwee ñi xale yi ne fii dañoo bëgg garde yi bëgg seen directeur parce que niñ leen di jëlee moo rafet kon nag loolu itam ñu ngi ñaan ñëpp def ko fu kaso rek ak fu jaamu yàlla ne ñu jàppale kaso yi borom alal yi aussi ñu jàppale kaso yi luñ man ñu def ko ci parce que alal yàlla la ko dénk te Serigne Touba radiyallahu na danaan wax ne li nga yore boo bëggee eh, yàlla dolli ci da ngay fexe joxe li nga yore nit bu dul joxe du am ndax ku ku bank sa loxo defe naa sa lépp day banku te wa ma anfaqtu min shay'in foo yoxli foo yàlla nee na bu ngeen joxee rek ma dolli leen kon ñu ngi def appel nag alal yi ñuy def ci caaxaan yeeg foo yeeg yépp def ko fii mu ëpp doole kon ñu nekk kilifa yi nga xam ne ñoo fi ne Euh, chef de cour a ngi nii ñi ñoo yor wàllu prison bi ak seen directeur euh, fa tabaarakallaahu ñu ñëw teewal ko fi njegee na nga ne moom it wax dëgg yàlla di seen njaboot jàmbaar lool di leen jàppale ci lu bëree bëree bëri ni ma ko waxee parce que moo dëkk Thiès ñi dëkkuñu Thiès xamuñu ruqi Thiès te dañuy wax ne ñu dëkk ci dëkk ñoo gën a xam dëkk ba donc bu doon ñoom yu bëri duñ ko mën a régler waaye bu ñu amee ko mel nii nga xam ne lu takk mu tàggarte ko fuñ mënta dem mu yeggal leen fa kuñ mënul gis mu gisal leen ko ko it gërëm ko du ci wàññi dara kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant sénégal yi yëpp di gërëm sénégal yi yëpp seen mbokk iran daw nag moo doon def appel boobu ci liggéey bu ñu ko sasoon mu di ko def fii ci prison bi ñu ko ko sasoon di Thiès ak sénégal yëpp ñoo ma ko bokkoon sas ak waa prison bi directeur amadou ak defal ko ministre bi defal ko directeur général defal ko procureur parce que ñoom moom liggéey bi ñoom lañ ko defal waaye rawatina président de la république fa tabaarakallaa waaye ma waxaat ko rek ne ko na bàyyi xel ne daal gaayam yii ci Thiès moom jàmbaar lañu président daal loolu laa koy wax na bàyyi xel ne ñii mu am Thiès jàmbaar lañu moo xam ne way leen mën a way ak euh, garaat boo leen mën a dolli ak foo leen mën a teg daal xamal ne ñii moom macha allah jàmbaar lañu ñu ngi def liggéey bu rëy lii rek lañ ci wane am na yeneen liggéeyu fi ne yoo xam ne wanewuñu ko yoo xam ne ñoom ñoo ko dox lu bokkul ak loolu nag ku ko am ku la koy defal du yem ak la ko defalul kon ñu ngi koy wax président de la république euh, wax ko kilifay diine yépp itam ñu ñaanal leen muy xalif généraux yi ci Sénégal yépp ñu wax leen ne seen njaboot yi liggéey lii ñu sàkku ci ñoom ñaan yal na yàlla génn ñi fi ne te yàlla dolli garaati ñi fi ne ngeen baal ñu yàq seen mbokk Iran Ndao moo doon def kàddu googu ci liggéey buñ ko sosoon mu ànd ceeg njaboot gi ñëw di ko présenté tey incha allah